ko si bët. Ah, na xam lu nga xamante ne waxu la ko demee def si ko. ah, ah expert ngeen la léeg-léeg. la la bu sa jabar maree nga xam ne dafa naan mu ne pas forcément. non day am réciprocité chérie Ah, bu mat sëkk bu mat sëkk papa loolu mën naa ne niveau de synchronicité ba nga xamante ne sa jëkkër buy mar buy mar da nga koy xam xoolal tey ma am lu ma naqari su ko jigéen waxul woon kon ma am lu ma naqari dama ne sa sa sa sa jëkkër sa borom kër wax dama ne tamit xoolal sa jabar su ko jigéen waxul woon ma am lu ma naqari Sénégal yéen ñëpp laay wax jigéen a ko wax nee na waaw mm-hmm. lii nekk cib xaj aku fas war naa mën a nekk ci jigéen ci diggam ak borom këram mooy ràññee góor tamit ràññeel waaw ab moo gën a ràññee boromam aw fas moo gën a ràññee boromam soo jugee ci suru bi rek moo xam ne boromam ñëw na aw fas dina ko sàcc nëbb ko ca wanag wa borom dugg ci biir kër gi di laajte mu dégg baatam mu ngexal voilà voilà où le débat fii la débat bi faussé Sénégal ben nañ ko bàyyi mu yegale na. gis-gisam la li moom ci boppam moom ko waxoon bàyyi mu yegale. nee na war naa mën a ba xam borom kër ndax mar na wala maru. waaw kon kooku digganteem ak borom këram mi ngi à jour. waaw ah, borom këram war na ko xam tamit. duñ ko si boole de. waaw ma ne. kii dem ba xam. ndax yow sa borom kër ndax mar na wala maru. xanaa kooku war naa mën a dem ba xam ne kii. kër gii sama tànk du fi dëgg ndax sama borom kër ab tànkam du fa dëgg. maa la ko wax wala ndax tilim ndax tilim na. vice versa war naa xam ndax kii sama borom kër xiif na wala xiifut. ñoom daal naa xam ndax tilim na. wala tilimul lii moo tax du ñu avancé. ñoom benn côté rek lañ jël. xanaa loolu pour ñoom jigéen war na ko xam si borom këram xalaatuñu le contraire pour la femme. ma Sophia Diatta ndax doo toog ba si àgg Demba bëgg a génn nga ne ko non non non ne porte pas cette chemise ah. noonu la ko koy waxee tamit moom. ma bàyyi leen ma ak Sophia ma bàyyi leen ma. Sophia nee na du def loolu nee na. bàyyi sama vie privée nga jël exemple. waaw dama ne. est-ce yow béyewoo ci Demba yow ak sa soxna ba ngay ñëw ba xam xool na ni nga sol affaire yooyu nga bàyyi ma wallahi wataalaahi bi may ñëw xool na ma ba na ma ok dafa am balaa ngay génn ay jigéen ñi ndax ñu ngi lekk ah? balaa ngay génn ñu ngi reer ak yooyu dama ne man kooku. ma ne balaa ngay génn xool nga ndax dara dara manqué wu leen. dama ne waxuma la man. non moom mais da ngay déglu. ay jooy mais xamul fu may daaneele nekk mu déglu ma daaneel. loolu mooy dëgg nag parce que bëggul dama ne waxuma la man. waaw waaye wu jëm ci boppam. day xool ndax lekk na wala lekkul. ndeysaan. ginnaaw ci barke borom Touba Mbakke wu jëm ci boppam. yow polygame nga kon. c'est un bon polygame en plus. mais wujj jëm si boppam lay xool ndax lekk na barke borom Touba waxuma wujj yow laa wax. waaw dama ne. dama ne ku koy defal ci wujj kay masaba man ak yàlla bu ma gisee borom Touba day xool ndax. yaa ngi xool ndax wujj bee kële ngi lekk. ndax ñoom ñi ngi lekk wala. waaw ndax manqué wuñu dara. non defe naa nag sunu xiifoon du du nu. ah defe naa la waaw kon xamoon ndax xiif nañu wala xiif nañu waaw. Eh, waaw defe naa. defe naa ne sunu xiifoon du nu fa toog ak képp ku génn sama kër laaj ko ndax dafa rafle wala dafa xiif. père loolu ngeen di ndëkk a laaj. képp koo xam ne gisatoo ko ci peer Mbaye Ngoné laaj ko ma yow ndax ab xiifa la fa jóge wala ndax dangaa rafle nga xool yàlla bu ma yor kuy rafle ci barke borom Touba. amiin man fu ma taxaw nu daggal ma. sant yàlla bu ak ku nekk duma fay tailleur. ay ay référence kii duma ko def. ba fa ma dëkk samay soxna ñoo fa ëpp bi ngeen bëgg barke borom Tuuba jox leen ko jigéen yi ah? waa jigéen joo xam ne yow doo togg waay non doo fóot doo paase doo yekk doo sangu koy sang doo togg ñoo ah, sangu bi doon jigéen joo xam ne doo togg doo fóot doo paase doo yekk en longueur de journée mën ngaa xëy toog ci chaise bi ba timis ñu ne allah kubar. di whatsapp ba kaay ay waaw. Oh. ak di ay message billahi wallahi wa taala barka borom Tuubaa doo togg munoo togg doo fóot <laughs> lay dox. téléphone ñëpp la léegi. doon lay dox ngay fay fóot. ñëpp koy def loolu mën naa tas kër de. yor ñaari soxna jël kenn ki di ko jox muy fay fóot. mais ah. ah. tin yaa ngi dar ndax tin tin yaa ngi dar ndax whatsapp. waaw Coupe d'Afrique baa ngi nii commencé góor yi amatuñu jotu xale yi. mais góor yi ci naka tin yaa ngi ceeb yaa ah. mais jigéen xanaa di nga jékki-jékki sa fóot. mais xanaa di nga togg. Mm. xanaa soo songowul matin et soir di nga sangu matin. loolu du question bi. ou soit yow yaa ngi sangu. loolu du question bi. <laughs> non man ma. mais lu tax nga koy sangu ko. loolu du question bi. Ah. loolu du question bi oustaz loolu du question bi. waaw ah, mais mais may leen ma daaneel. ndax boobu Sénégal dañu bëgg. buy leen matanee na waroo ko exiger. sangu bi di leen di ko jox bët. yéen jigéen ñi matanee na borom kër warul exiger. soxnaam pour mu sangu. mu ni yow boo sangu ndax moom borom esprit dama ni wala ndax moom kii jar naa déglu. dama ni boo sanguwul amoo droit di ko sangu li ma wax leer na naa mi ngi ci concept bi. yow yaa ngi sangu sangu woo ba pare di ko sangu. pour li ma leen wax ñu invité Mata mu tegle ay tànkam di wax ak yéen di leen conseil est-ce que moom mi ngi ci concept bi wala nekkul ci concept dama ne boo sanguwul amoo pour exiger que mu sangu maa ko wax dégg sangoo bu ko exiger mu sangu ah, xam nga xoolal Mata dafa wax lu am solo mais mayu ma ma daaneel dafa ma këf c'est pas dire c'est-à-dire mooy yéen góoru Sénégal yi vous di bàyyi attention commentaire yi ak Matta ni jigéen di bàyyee xel borom këram góor yi nañu bàyyee xel doonu arrêté nga xam mata moo doon wax ni góor ñi bàyyee xel ni jigéen bàyyee xel borom këram waxu ah. parce que tu as porte pas au dos mooy sama jëkkër dafa métti lii ma sol dara nekkul c'est ça le problème wax ci këram sama eh. jëkkër dafa fii mais lii ma sol dara nekku des fois des fois waxul dëgg des fois nga gis man hey des fois tu vois un homme mu solu solu boo xam ne neexul jabaram. jabaram ne ko ni nga solo kat man bu woon sama sago nga saa mu ne ko non du yow yaa may wax ni may solo allons-y. non non non day nekk en fonction de ils ont même les mais góor yi bu ñu waxee rek décence bi mooy décence bi li nga sol fii à la poitrine au dehors ku ne ko non yow nag da nga metti li ma sol dara nekku ci di tëgal ay ween après da la wala bàyyi nga def quoi loolu la yërmande ça c'est quelque chose exemple yi ngay joxe tamit nekk su suñu problème dans notre société c'est archi faux chez toi peut-être chez toi mais c'est pas la généralité on se calme déjà observation góor saytu ko nga sol fangaram bi nga sol yaram góor saytu ko dégg na yaa ngi répété yéenay fekk yéenay fekk yéenay fekk wen out li ma wax ni may ma mën naa wax góor saytu lu wax jëkk dañu bàyyi mata ci temps de parole mu géré ko ñu mën a def xoolal dafa metti xoolal dara nekku ci xoolal loolu bu nekkee source de problème loolu bu nekkee source de problème c'est à ton niveau yaa ko choisir prof yaay dem fekk wen out jumbax out fu ko neex fanaan fes out nga jël ko xanaa yéen a wax ne waa déglu ku tegul ci yoon nga teg ko ci waaw nga jéem ko jubbanti waaw mais si toi tu faillis à ta mission boo fayiree sa mission c'est la faute à qui tu vas tu vas non xoolal écoute le débat ñu bàyyi kii mu ñu bàyyi ñoom li ñu wax dafa garaaw ñu yàlla jigéen xam nga lan la ñu wax. am na jot c'est pas le sens de fausser un débat. fausser un débat mooy lan Benoît fausser wuñu débat bi dama ne. hors sujet dañuy hors sujet ñoom bëgg nañu jigéen ñi di leen xool te ñoom duñu bàyyi xel ci jigéen ñi. Benoît si gis-gis la. moo am Benoît moo am Benoît. nañu bàyyi Matam mu yeggale. mais Benoît am nga jotu jubbanti jigéen. yow ma ne man sama jabar bu toogee. dama ne ndax am nga jotu jubbanti jigéen. xam na bu jëkkëram xiifee mar dama ne ndax am nga jotu jubanti jigéen xam mata bu xiifee wala mu mar yow kan may toog di lay redressé ak di la jubanti <laughs> à cette heure ci yow mata ah. kii am nga jotu di ko jubanti fii mu ne waaw kii waaw yow mën ngaa jubanti non non moom ku jub la waaw jub na mais kan la ñuy jubanti kan la ñuy jubanti lan la ah. ñuy jubanti ci man non maanaam exemple maanaam comme ki li eh, li kii wax léegi de man ku ma am du ma jubanti macha allah yow yow eh, eh. yow tal nga maanaam gis mata. di jubanti ci moom ak di kii ak yooyu. yow am nga jot googu fi mu ne ak fi nga toll. oustaz man fi nga toll. am na ko nga xam ne ay xam-xam ngay war di tontu ñu lay envoyé WhatsApp sa jabar jubanti ko nangam lu ca jaadu ngay fanaan di tontu ba bët set am nga jotum di xool jigéen di ko di toog di ko lijjanti ak di ko jubanti non da nga leen rus quoi parce que li ñu wax tegul fenn oustaz xool li ma laaj oustaz bi nga xam ne asaran la ba léegi ñemewumaa tontu ab oustaz ma laaj ko lu toll noonu waaw xoolal ndax am nga jotu fii nu toll tembe tembe tembe nga jël ci ñii oustaz du la tontu parce que sama temps de parole la mais na toog ma wax ak yow am nga jot googu damay laaj ndax am nga jot ah, googu bien sûr ah waaw waaw d'accord waaw waaw c'est parce que waa léegi bu ñu dul jubbanti bu fekkante ne duñ jubbanti. Safia Safia di jubbanti Safia dafa am loolu ala kuli àll Safia dafa am lu wax waaw waaw loolu ala kuli àll mais man maa amul jot boobu dafa ni poids di toog di redressé di kii ba amatuma yooyu aw ma yooyu ku mën na toog ku mënul na dégager du plancher <laughs> ah, barka Borom Touba Safia sànq